mbokk internet yi nga xam ne yéenay seetaan MDG TV ñu ngi leen di nuyu di leen wax ngeen dal ak jàmm abonné leen suñu chaîne activé cloche bi ndax vidéo bu ngeen mën koo gaaw lu soxal mbirum ki nga xam ne moo di Farba Ngom nekk maire bu Agnam waaye président de la république moom Farba Ngom mi nag euh, bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar ñi nga xamante ni ñoom noo di waa OFNAC euh, ñoom ñi nga xamante ni euh, danoo demoon fële ca kër Farba Ngom ngir di xool li nga xamante ni moo di moomeelam waaye lan fa fekk ca këram daal yéem na lool muy lu doy waar vingt cinq milliards ci suñuy euh, koppar moom lañ fekk ci këram moom mii di Farba Ngom waaye tamit ay kër yu baree baree bare yoo xamante ni euh, moomeelam la moom mi nga xamante ni moo di Farba Ngom euh, ci fàttali nag moom mii di Farba Ngom xalaat TV defoon na vidéo daal di wax som bu toll nii nga xamante ni moom la of nag fekk ci këram waaye niki tey jii nag of nag ñoom ñoo dem ca këram fekk fa som bu toll ci vingt cinq milliards muy lu doy waar te jaaxal ñëpp moom Farba Ngom mi ñu fàttali ni moom mosuñu koo dénk daal benn post boo xamante ni kii ne ko ginnaaw bi nga xamante ni Macky Sall mi ci réew mi euh, lu ci mel ni euh, poste ministre wala dara waaye moom daal maire rek la nekk am lu toll ni ci ay milliards muy lu jaaxal ñëpp.